Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Papa Sow Siteu ñaari style yu xaw a wute wala mën nañoo wax ñaari tempérament yoo xamante ne ñoo ko xaw a niiroo mooy dañuy bëgg a làmb ji jeex nan gisee affiche boobu. Siteu aussi sànq rek maa ngi lay expliqué ne la ñun toll nañ si làmb foo xam mën nañ analyser nag parce que li ñu gis la ñuy wax. Siteu bi muy bëree euh, Sa Thiès dama ko wax ni ko concentré woo ma ne ko oh, il faut ngam ñaari staff benn staff bi mooy xale yi ngay àndal entraînement répété fecc ak yooyu mais il faut nga am beneen staff ay mag la ñoom da nga leen di déglu ngay concentré wu sa bopp euh, boo xoolee nee naa la sànq mënoo bëgg a dugg si stade trois heures di daw di fecc di ambiance ba vingt heures nga bëgg am fraîcheur bi nga soxla bëgg a bëre normal mënul nekk nit nga rek donc kon il faut mu gën a champion la nag boo xam ne mën na am lu nekk ci làmb mais il faut muy gën a concentré aussi boppam pour mën a egg nag niveau bi nga xamante ni foofu la soxla mais day daje koo xam ni Papa Sow dafa am expérience ci làmb te comme maam bi ñu bëri ñu ngi ko tuddee combat sànni tàccu mooy soit daan resté bu ko booy bi daanee moom làmbam day xaw a doy waar kon expérience la face à la jeunesse donc Siteu li ko war mooy serein xam ne kii muy bëreel buñ bu dégg naa keroog ñu bëri sax mu naan ko mag nga mag nga mag nga man góoma lool si sport parce que nit bu amee hygiène di vie bu baax di entraîner ay affaire mag yooyu du fa feeñ na ko jox cër comme ku ne moromam lay bëreel mais topp mag nga mag nga mag nga mag nga képp ku la jox combat ne la ki ngay bëreel mag la boo ñàkkee combat moo la ko xañ waaw mbër bu jëlee combat da nga koy wax ni ko combat sérieux nga am kii day entraîner comme yow day noppalu day lekk comme yow jàppal ni yéen a maase ba ba nga daan koo pare kon bu jàppee ni mag lay bëreel mën na ci am lu ko naqari Papa aussi bu ñëwee topp euphorie jeune boobu topp ko si nit moom mën na am lu ko naqari Papa na na dal def indi expérience ci làmb ji te aussi na am moment boo xam ne day dal am mag ñu muy déglu xam ne ki muy bëri ko am expérience la sinon rek mën na mën na si am lu ko naqari xam nga euh, waxtaan boo gis dañ koy jeexalee fi mu war a jeexee combat royal bi laa koy jeexalee <laughs> Bombard euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Modou Lo jël ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé mu nekk combat boo xamante ne ñëpp ko yàkkamti tamit nan gisee affiche boobu. waaw affiche bu neex la man bi mu taxawee nee naa bokk na ci combat yi gën a suqaliwaat làmb parce que dafa nekk ñaari mbëru banlieue te boo seetee sport de combat yëpp. souvent lii indi coow lii indi yenn combat choc yi day nekk ñaar ñu nekk si banlieue bi parce que boo seetee si banlieue bi ñoom ñooy gën a ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy gën a topp seen i waaw ma dégg bëre woon nañ ñoom ñaar si temps mbapat mu nekkaat kon rek beneen règlement de compte boo xam ni ñoom ñaar dafa ne seen diggante am am rivalité et puis et puis c'est normal euh, ay mbër bu ñu jógandoowee il faut rivalité day am rivalité day am. mais combat la tamit bu naqaree pronostiqué waaw parce que ku si nekk dafa am loo gëm ama yàgg na topp Modou Lo ne dafa bëgg a moom mais it dama lay wax ni la benn génération bi lañu bu ñu jàppee ni mag xale ñooy bëre de benn génération ñooy bëree parce que ñaar ñi fekkante mbapat ba ba ñu nomee leen ñu bëree mbapat ñoo bokk génération bu ñu jàppee ni Modou la du ko mag bay bëree xale non ñoo bokk benn génération ñoom ñaar kon combat ñaari xale lañu te it combat bu neex la. amaa nee nañ dafa am sañ-sañ fu adversaire nekk dalay lay song indi la problème. waaw mbër bu amee sañ-sañ man na am lu nekk mbër bu amee góor bu amee sañ-sañ def mën na sax mën na sax daan ko ko mën parce que sañ-sañ mooy def loolu mais Modou it macha allah dafay bëree dafay bëree dafay bëree bopp waaw neexul daan de hmm? waaw neexul daan. dafa am style boppam boo xamante ne moom noonu lay bëree. il faut nga respecter style bi. il faut nga respecter ko ku ko si respecté pour nga daan ko problème la de. Ah. Ah, waaw kay maa la ko wax parce que euh, noonu muy noonu muy bëree. da dalay da lay toujours da lay si boppam. waaw moo day def ay aller retour amaa nag dafa am sañ-sañ boo xam day ñëw ne la lii laa la bëgg a def nit nag bu amee sañ-sañ ne lii laa la bëgg def soit dina ko réussir ou bien du ko réussir waaw ah, man style boobu style bu ma naw la mooy mooy nit da ngay gëm sa bopp nga ne man lii laa bëgg a def donc su ñëwee dina ko def mais la say xew nag après yàlla moo xam mais nit da ngay am gëm-gëm ne lii laa bëgg a def mais est-ce que tamit euh, la mu bëgg def noonu est-ce que yoon la tamit pour mu def ko si combat bi. est que yoon la mu def ko ci combat bi. est que yoon la pour mu def ko si combat bi parce que Modou des fois stratégie yu garaaw lay lay bëree. waa recul boobu muy def ak déplacement yooyu nekkul daw da lay da lay aspiré da lay aspiré si boppam da xëcc si da lay pour def la li bëgg a def. maanaam ku naqaree bëri la Modou Lo. si ku bëri la loolu moom loolu moom xam naa ko parce que stratégie lay bëree moom bu ñëwee dafay dafay am programme ni lii laa bëgg a bëree daf lay daf lay daf lay attiré si boppam andi la moom si li mu bëgg. combat bu la. combat bu yéeme la bu bëri calcul. waaw combat bëri calcul la mais daal nee naa la mbër bu fekkee ni gëm na boppam ne man su ma ñëwee góor gu taxoo sama kanam. gëm naa ni maa la man li laay def man nga am lu ne. li may wax nag waxuma en tant que supporter en tant que sportif mooy wax parce que tey góor bu ma dee sax quatre-vingts kilos ñëw nii man lii laa gëm li laay def man na ci man na man na si daan ku ne. Euh, euh, fi muy jeexale mooy sa diggante ak euh, ki nga xamante moom mooy Luc Nicolas yàlla def mu génn nan nga ko gisee lan ko koy wax. mais lig man maa ko indi si làmb maa ko indi si làmb te tey defe naa magi làmb yu bëri mën nañ ko dëggal jour bi ma njëkkee ànd ak moom sama kom ak Pape Cissé magu baaboo yi bi ñëwee mu toog si ci mukaay li noonu. Luc Nicolas dafa pardon Bécaye Mbaye dafa ñëw ni ma saa fan nga jëlee fan sa cumukaay tey am naa la ci nekk. ma ne ko non kii la sama xarit la maa ngi moom ñu dund lu bëri vraiment associé tëgg làmb ñoo tëggoon Bazoka ak Gora Fall ma koy indi si làmb ba yàlla def mu nekk promoteur ba mu amour bi ba bëgg làmb bay tëgg làmb kon bu nekkee si ay difficulté dañ koy ñaanal yàlla mu mu mu jeex yàlla def na jeex na ñuy remercier bu baax président li mu def parce que Luc Nicolaï tey mu libéré ko tey muy def activité làmbam nekk ci fameem moo gën mu téye ko benn place yàlla def na lañ doon ñaan sénégalais yu bari koo si wax danaan la justice mënoo ko forcer mais mën nañ ñaan waaye ñaan nañu yàlla def na tey lañ doon ñaan nangu na mu dellu si fameem delluwaat si famille làmbam euh, di ñaan yàlla aussi mu organiser combat Modou Lo ak euh, Ama bi donc ba combat bi jàll mu delluwaat si famille génnam daal mbégte lañ ci am parce que ñoo bokk dëkk Mbour c'est la famille ñoo bokk aussi milieu làmb ji kon tey dañ koy ñaanal mu génn ak jàmm ba mën a continuer activité